ñu ne buy kuy voté di amo droit nga tak ay nombo manam giri giri voté mom jaru tak giri giri hein mais c'est normal c'est pas normal mais c'est normal c'est pas normal ay ndombo quoi ay ndombo ay galaj ah mën ta ñak rek ay ndombo mën ta ñak mën ta ñak quoi sa waay loolu dina yema den euh euh nee na it bésu vote bi amuñu droit ñu ndékki balaa ñuy voté ji. amuñu droit ndékki ku wax loolu ah man de damay ndékki ndékki damay ndékki ba suur. bésu dem voté ji ban buubu ban buubu nga yaakaar ne lañ war a sol. kooku la man man de ma dem yëre olof laay sol may dem. jafe-jafe yi bari na. ñu ne Obama dafa voté ak ordinateur am dafa toog. fim tok voter ak ordinateur am est ce que yaakaar nga ne technologie bobu non Ablaye wad war na ko mun war na ko utiliser pour voter. non koko mom waruma wax. ñu ne bu ñuy ji bésu vote bi amo ci amo droit tak ay nomb manam ay giri-giri ci ci bir bureau de vote yi xalat xalaat. waaw. posé waatal question bi. lolu buñ ko waxe fan lañ ko tek wala kuy vote vote ak giri-giri lan mo ci lan ban différence la am. kooku moom ah dina yéeme de bu baax a baax sax il faut moom gars yi tàgg seen doom moom giri giri yóbbaale moom. xam nga giri giri da nga koy ut pour musluwaay sa bopp vote da ngay dem déposer sa carte déposer ko dem xool ku la neex nga votel ko ko loolu yoonu giri giri amu ci. Sénégalais moom danoo gëm giri giri danoo gëm ndomba ñoom bu ñuy dem ciy jàng dañuy takk ndomba bu ñuy dem fu ñu jëm dañuy takk giri giri. bu dee da ngay woote rek xool ki la neex nga woteel ko jarul takk ndomba jarul takk dara. proviseur catalyseur yow lan mooy rôle ci maanaam ci bureau de bi ci biir urne bi ci biir urne bi ci biir urne bi. waaw mais man yooyu noonu man booy xool man loolu lépp intéressé wu ma. billaahi wallaahi paa bi du toogaat. maanaam xamoo rôle proviseur bi proviseur euh, catalyseur bi rôle ci biir bureau de vote bi. man xaw ma rôle am xaw ban rôle lay def ci affaire vote. amoo droit ndékki ah man de fu may damay ndékki ba suur. marke fe bu ma jom bu ne dama ndekki ba suur yow man xëy na bu fa don dem suñu mané may mom ndekki doga a dem. <laughs> amuñu droit ndekki mus nga gis xoto saxu kesse buy taxaw ah dama la ko laaj wa legi ndekki bi tamit ah, lan mo tax ñu wax lolu wala legi ñom luñu bëgg ñin ñi xana duñu lek duñu nan si am nga droit ndekki kay parce que boy voter mom il faut nga def dara sa bir door tok voter voté. supposons que yow nga dugon tànn sa candidature ba pare nga dem nga joom candidature bi nga bi nga ki nga ki nga duggal ci biir caisse bi ci urne bi nga joom yan procédure nga yaakaar ne nga wara def pour voter wat euh euh lui a ci cher na. bu fekke dama joom def ci benen caisse mo warul def dina len laaj ni len ah man da dama joom wax ak ñom ci njekk ak tranga su fekke lolu man na nek baxna su mënul lekkit ma xamni sama yene na dogal. c'est quoi le rôle.

vote boo fa demee buuxante ak raa ak lu sori moo fa nekk. boo demee loi bee ko wax nee daal ku ndékki ku ndékki boo ndékkee doo voté. fan la ñu teg loolu. Ah, affaire mi ngi bëgg léegi loolu loolu fan lañ ko teg boo ndékkee doo voté pour lan. kon léegi ñu bañ a ndékki bañ a